wallu dafa def normal gis loo xam ne nii c'est un danger pour la République mu ñëw pour défendre loolu et défendre la République demander une commission d'enquête pour ñu leeral ay situation yoo xam ne nii am na ci invalidation wu candidature de Karim Meïssa Wade loolu bëggoon nañu mu leer ci boppu askan wi te li andi loolu mooy la le conseil constitutionnel ci lu toll ci fukki fan diggante fukki fan conseil constitutionnel génne na ñaari décision décision le 12 boo xam ne dafa indi 21 candidats ñëwaat le 20 génnewaat Karim Meïssa Wade ci situation yoo xam ne nii situation yu douteuse la yoo xam ne nii leerul ci bopp askan wi ndax nag fi ñu toll nii tembe coow li moo bari rek mais Sénégal gépp am nañ lu leen desee leer ci naka la ñu génnee Karim Meïssa Wade parce que bu fekkente nii conseil bi dafa indi décision le 12 ñëwaat indi décision le 20. soo xoolee même le conseil constitutionnel en tant que tel da ngay gis ci biir ni moom contradiction yi nga xam ni am na ci décision yi dafa mel ni sax moom dafa violer la loi organique bi nga xam ne ni moom moo organiser le conseil constitutionnel ndax bi ñu ñëwaatee le 20 dañu wax dañu déposer une réclamation mais réclamation du recours kon nag aajowul ñuy examiner le fond du dossier sinon ça devient un recours pour violer même la constitution à son article 92 kon le conseil constitutionnel mun nañu wax ni dafa même violer la loi organique bi nga xam ne moo organise seen fonctionnement en article 14 parce que ils ont instauré une procédure contradictoire au moment où déposé nañu ba pare joxe nañ li ñuy joxe kon dama jàpp ni tey fii réew mi toll conseil constitutionnel moo indi jafe-jafe yi nga xam ne fi la réew mi toll loolu nag képp kuy patriote wala képp kuy république ki nga xam ni moo porté woon réclamation bi daf ni daf doon défendre la république et des valeurs de la république moo waroon a jëkk a jóg taxaw tey pour voter la mise sur pied de cette commission d'enquête parlementaire pour défendre la république mais pour leeral li nga xamante nii ñu ngi leen koy jiiñ ndax climat bii nga xam ne nii ci la ñu nekk est-ce que mën nañ ci dem élection yoo xam ne nii waa conseil constitutionnel bii ñoom ñoo koy arbitrer man yaakaar yaakaaruma ko te sénégalais yu bari loolu lañ yaakaar donc problème bi dépassé na largement la personnalité de Karim Meïssa Wade mais c'est la République en jeu. Et, ma, et je pense que bu melee noonu l'institution parlementaire devoir am mooy moom mu jóg taxaw défendre cette République loolu moo tax la groupe Wallu déposer la création de cette commission war ko voter di ñaan collègues yi nga xam nii ñëpp ñoo nekk ci hémicycle bi ñu euh, ñu voter ko parce que bu ñuy ñëw tey di wax ci nationalité Karim Wade mais ñëpp xam nañ ko ñëpp wax nañ ko parce que loi bi dafa wax nii moment bi ñuy délibérer. bi ngay kañ la nit ki di nekk candidat le 20 moment boobu noonu Karim Wade moom moom rek moo nekk ci 21 yi ni sénégalais la bu wóor kon li jaaxal nit ñi mooy le conseil constitutionnel contradiction yi am ci décision yi nga xam ni xajul ci antenne bi nga ah, prise de parole bi ak yi ci am yépp yu luus yooyu noonu moo jaaxal groupe wàllu ak sénégalais yi ba ñu demande une commission d'enquête parlementaire léegi nag li muy aboutir loolu moo ñuy yóbbu ëllëg fi nga xam ne nii fi lañ jëm en tout cas ñun li ñu jàpp en tant que groupe wàllu mooy élection yi moment bii ñu nekk nii ak conditions yi ñu nekk ak l'actuel conseil constitutionnel mënuñu ko tëral ci tëral boo xam ne nii ñoom ñoo ko war a atte parce que li ñu jàpp mooy fayir nañ à leur mission ndax nag boo nekkee juge ñu lay wooyee sage am na yoo xam ne nii décision yoo xam ne nii waroo koo jël am na leneen loo war a interpréter lu dul li nga xam ne nii moom la ñu merci beaucoup monsieur le président euh, monsieur le ministre maa ngi nuyu di nuyu say collaborateurs di nuyu les collègues honorables députés di nuyu presse bi nga xam ne ni moom moo présent fii ci salle bi euh, di entamer samay propos ci encourager le groupe Wallu ci combat de principe bi nga xam ne ñu ngi nekk di ko xeex euh, ndax nag am nañu droit avant des éclaircissements ci li nga xam ne ni moom mooy euh, seen candidature candidat Karim Wade waaye nag euh, ma bëggoon rappeler juste que ne le conseil constitutionnel sept sages ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk le président Ousmane Sonko tegu leen fa Macky Sall moom moo leen tànn teg leen fa c'est un rappel euh, aussi que li nga xam ne nii moom mooy le code électoral ñun ñoo ko fi voté woon kon nañ assumer may fàttali aussi fàttali aussi ne li nga xam ne nii moom mooy euh, droit de contrôle sur le parrainage ñun ñoo ko jox waa conseil constitutionnel kon nañ assumer ci loolu may wax ne euh, li nga xam ne ni moom mooy les élections nag ñun nu sommes non au report des élections parce que la volonté sénégalaise mooy ñu dem élection de la volonté des sénégalais mooy ñu dem élection kon dañuy dem élection euh, ci loolu nag ndax nag sénégalais yi bu fekkee ñoom dañoo nekk ay victimes kenn du leen xool sénégalais ñoom ñoo nekkoon victime si force fond Covid te kenn ubbi fi ay question d'enquête parlementaire sénégalais ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nga ba pare Euh, sénégalais yi tamit ñoom seen alal bu fekkee ne dañ koy salfaañe kenn du leen lijjanti ndax nag les mille milliards de remises gracieuses yi nga xam ne ni jox nañ ko entreprise yi sénégalais yi ñoom ñoo ko moom te kenn waxu si kon nag sénégalais yi bu fekkee ne ils sont victimes am problème kenn du leen lijjanti bu fekkente ne c'est ñu bëgg a politiser li mooy la doodee sénégalais kon nag dañuy dem élection ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko nag moom dafa yàgg a défendre dafa yàgg a défendre que mu am des élections libres transparentes et inclusives loolu la président Ousmane Sonko mus a défendre ba mu koy wax nag jàppoon nañ ne c'est à son profit te xamuñ ne ñun projet la ñu yor projet bi nga xam ne yor nañ ko nag képp koo xam ne tànn nañ la ne la yow yaa na si kanam rek dañ lay dañ lay jiital pare jàppale la ànd ak yow liggéey ak yow te président Ousmane Sonko dafa joxoñ candidat candidat ban mooy le président Bassirou Diomaye Faye Diomaye nag di Sonko Sonko di Diomaye Diomaye mooy Sonko Sonko di Diomaye pour mu leer di leen di wax ne Bassirou Diomaye Faye c'est un sénégalais juddoo juddoo fii biir Sénégal dégg njagañaaw bii la juddoo jéggaaniwul ay maam jéggaaniwul ay dëkkandoo abbiwul ay dëkkandoo fii la dëkk Sénégal gii la dëkk c'est un Sérère pur nag mu leer beneen bi mooy may wax ñi nga xam ne ñoom ñooy les patriotes le 25 février dañ koy waajal waajal leen ko dem retirer seen carte carte d'identité seen carte électorale ba pare dem vote ji rek ci bureau yi sécuriser seen bopp beneen bi mooy ñu xam ne le 25 février day nekk une journée une grande journée électorale te xam ne le 25 février sera le jour du Sénégal en fête incha allahu rabbi ñuy wax ne le peuple sénégalais ñoom yooyu décidé objectif bi nga xam ne am nañ ko mooy le 25 février que mu am le chute du régime de Macky Sall régime de triomphe ñu triomphe ba pare. avec des forces politiques souverainistes et panafricaines inch'Allah rabbi le peuple triomphera et le peuple inch'Allah dina leen fi jëlee teg fi ñi nga xam ne ni ñoom ñoo war a doxal te ki war a doxal mooy le mooy Bassirou Diomaye Faye inch'Allah rabbi mu neex leen mu naqari leen élection dafay am li tax ba bëggu leen élection am xam ngeen ko li tax ba bëggu élection am xam ngeen ko da ngeen foogoon ne bu euh, am xam ne du am force ñun le président Ousmane Sonko ku mu joxoon Sénégal incha allah dina dem le président Ousmane Sonko boo joxoon Bassirou Diomaye Faye te dinañu vaincre nous vaincrons incha allah rabi 11h ñu jubilé bu soobee yàlla jërë ngeen jëf. merci cher collègue.